safando dit ke malkamago gormatam beskendo yay mbokki Sénégal mbokki amateur yi Juufi production dellu si na cinquième journée am ci saison 2024 bi lee muy le 17 août ci arène nationale ci combat jinne combat njar combat espoir muy dox ci diggante caatu kayre ak bébé Jackson di ñaari mbër yi nga xam ne bu ñu dajee xolu amateur yi sedd loolee mooy première édition drapeau Serigne moor le grand marabout di mara bi nga xam ne mbër mu mu yóbbu stade say mbokk kontaan te xam ne ndam ngay ñibbee ma ne spécial ba mu ne mooy dox ci diggante Cheikh Bari ak Laye Birisli loolee mooy deuxième drapeau président Cheikh Tidiane Niang responsable des écoles et écuries du Sénégal waaye diggante Boylo ak Bébé Jali loolee mooy drapeau Awa Ndiaye la lionne de l'intendant des palais nationaux muy jàmbaari fàkk tëdd di jigéen ju mën góor mu ne ma la ca gën neex nag mooy combat préliminaire ya ndax dañoo xool xale yi tolloo doole xale yi mën bëre lool te teel a am coow mu daal di leen di boole premier combat diggante caatu golf ak caatu marché Yille Baba ak caatu Daouda Fall numéro 2 Pape Mbaye numéro 2 ak frontière 2 Mbool ak Calki Boy Sila ak caatu Tunduba Hamza ak deux bu jànk xalaar caatu Moussa Dioum ak Ngel Kokki ma ne ah mbokki amateur yi kon bés a ngoog le 17 août ci arène nationale ñu fekki Dioufy production ci diggante caatu Kayre ak bébé Jackson muy combat bi amateur yépp di xaar mu ne sponsor yi ñu ngi ànd ak Tampico ànd ak Boisson King ànd ak Harmonian di sponsor yi nga xam ne ku nu gunge nga ñeme fa nga jëm ak établissement Touba Darou Rahman le ci wàllu bâtiment ak civil ñu ne entrée supporter 2000 francs bu dee loo francs kon yi mbokki Sénégal mbokki làmb bés baa ngoog Dioufy production ci ay combat yu amul fenn adna doma dom yaay ñaananam ko ci am andim ke fer na win waay Ama Baldé nag gisee san bi carrière bi ñu mën a jëraat pour jël te Ama Baldé nag gisee coow li bari ci ko waaw Ama Baldé xam mas naa wax si moom man kii miinante wuñ torop torop dinañuy gisante de temps rek mais man li ma jàng ci mbiram mooy euh, ku bëri charge la boo seetloo mas naa wax si moom ma ni si 2S laa ko waxoon sax ma ni Ama Baldé il faut mu bëri ay combat parce que yàlla day binde nit noonu mu nekk ci famille man na si gën a nekk xale sax mais responsable lay doon bu mag si biir famille bi kon bu toogee ay 4 ans 3 ans 4 ans bëriwul day metti du dëkk euh, yàlla def na bëri naa ak Modou Lo bëri naa ak Gris Bordeaux mais léegi. est-ce que ñooñu naan bu mu jël franc Ama Baldé bu amee problème mu 500 bi dañ koy woo régler ko ko Ama dafa yor njaboot yor famille yor ay besoins boppam moom te dooleem la yaakaar doole day jeex doole nekkul luy continuer ñoom mbéy gee jaaroon nañ fi ñoom mbéy bambara jaar nañ fi tubaabu joon ñu ñëpp jaar nañ fi boo ci tollee da nga koy def parce que amul benn làmb booy jël Sénégal ñëpp ni 100 pour cent d' accord nañ ci il faut ñu ne risque la waroon a jël lii waroon def lii léegi Ama Baldé mu toog noonu bu amee soxla kan moo koy fajal kon dooleem la yaakaar bu gisee luñ ko fay lu ko jaral que muy franc que muy keneen lamb ji amatul loolu léegi na jël combat bi dem bëri ji waaw. am combat boo xamante ni euh, combat royal. Siteu tey boo ma doon wax ci Siteu fi mu démarré ak tey ñëw di bëri combat royal moom ak ki nga xamante ne moom Siteu tuuti laa waaw Siteu Siteu mas naa wax si moom bu yàgg aussi mais Sénégal dafa naqaree wax ak jafe mais Siteu moom mu ngi progressé mu ngi màgg mais moom li ma gis mooy mboolam da ko mën a yóbbu fu ne da ko mën a da ko mën a jox lu ne si làmb parce que dama gis non non no non dafa jël dafa jël carrière normal mais xam nga euh, man waa jàmm gën ni ñuy ni ñuy taxawoo seen nit. man daf maa neex parce que seen mbër daf leen jaral lu ne te Siteu mbooloom daf koo mën a jox lu ne daf koo mën a may lu ne moo tax il faut nit ñi def attention si moom à plus doon nañu déggante tuuti si côté MMA doon nañ si waxtaan lu bëri lamb nag li ñu si waxtaan bëriwul mais MMA doon nañ si déggante euh, mais xol bu xol bu xol bu rafet la yor xol bu rafet la en plus geste yi nga xam ne mu ngi koy def nit ñi di ko dégg yàlla dina ko dina ko dala koy fay un jour xam nga yaa may déggool déggoo ma waaw ah, yàlla lu mu nammul mul mu lu mu nammul def du ko dugal si xel si xelu doomu aadama yi waaw ah, kon nag euh, dégg naa ni ku man social la ku mën jàppale ay ay ay ay nitam lañu kon loolu lu baax la kon nag combat la boo xamante ni commencement bi nag nit ñi gëmaguñ leen parce que il pare que ñoom ñaar dañoo amoon ay relation voilà kon nag lii tax loolu dañ mooy nañu livrer combat bu neex combat bu métti waaw. ñu gis dafa ñëwaat de benn phénomène phénomène bi que ni gisañ mu ñëw takkam bareetul boole ñaar ñoo xamante ni peut-être bokk nañ ci meilleur de sa génération muy muy Ama ak boo Niang réussir ko mu ne dootu mayti benn mag chance du bëree képp ku mu bëree lool képp ku mu bëree lay bëree te booy lay bëree loolu nan nga ko déggee. waaw loolu moom suwaaw suwaaw suwaaw at suwaaw nit ki la ci boppam suwaaw suwaaw boppam la suwaaw mot loolu bu ko neexee mu ne kii laay bëreel dootuma bëri kii dootuma bëri kii loolu mbër bu nekk am na si droit mais euh, moom tey fi mu toll niveau bi mu toll nii gëm boppam ak liggéey moo ko fi indi parce que man bëri naa ak moom euh, gabari bi mu yor mais ku naqaree bëreel la waaw yàgg naa ko wax dafa naqaree bëreel si préparation si tactique ku bëre parce que ni muy bëree dafay dafay aller retour waa dafay def aller génn ba nga yaakaar day daw day defar retour loolu nag pour nga mën koo pour nga mën koo pour nga mën koo kii foog nga mën koo maîtriser dëggantaan pour nga mën ko jàpp moo tax poids lourd yu bëri yi mu doon bëre dañuy am problème kon nag combat la bu war a neex ndax Modou Lo bi ñuy démarrer ñu bëri dañ wax naan sëriñ rek la gëm. am na comme bu mu daane sax gars yi di ko féliciter moom muy for ay téere donc bi mu demee nag ba nga xamante ni gis na réalité yi ne man kat lii lu ma nekkoon la gis naa lu dol lu dal sama xel mais heureusement ba bi mu ko defee premier combat mu am ndam bu si daanoon moom fa lay jaaree boo moytu fa lay jaaree bàyyi làmb te xam naa ni lii ma lay wax ni moom xam na ko dafay làmb ñu bari boo ñëwee ñu gis takko dañ naan ki day xaru mais boo daanee dañ naan ndekete kon gàllaa ji doon dara. nag a jekk bëriwu may takkaay <laughs> man boo xoolee sama làmb man li ma doon takk mosul bëri parce que man dama yàgg wax ni làmb bu nga def ko doole la fit ak entraînement Serigne Sow nga ñëw ay quatrième cinquième position pour muslaay bëtu nit ñi mais pour li daan mbër yaa koy def waaw. Lac de Guiers waaw Lac de Guiers dañ koy euh, ñaanal rek si lii mu lii mu jóge euh, àddina moom ay ay ndog-ndog la kenn yéenewu ko benn doomu aadama mais nit moom dafay am destin rek dafa am loo xam ne destin la comme ni mu demee dëgg-dëgg si biir man xaw ma mënu ma ci mënu ma ci sori torop juste rek mooy ñaanal ko jàmm ñaanal aussi jàmm ñi nga xam ñoom la ko ñoom la seqaloon affaire yi que ba jàmm dellusiwaat yàlla na continuer noonu moom it mu reprendre entre am continuer carrière am mais dafa am mbër yu mbër bu nekk ni muy ni muy bëree moom peut-être loolu muy bëree moo dal xelam ñii ne nañ du bëree day xaar euh, mais si biir xaar bi am na ñoo xam ne wax nañu ne moo fi gën a néew ay defet benn defet kon loolu arrangé na ko moo tax ñenn ñi ne day rasu ñi du bëre mais moom lu leen di wax yow mu nag ku ku ku ku ne damay rasu ñëwal nga jàpp ma daan ma donc ah bu fekkee loolu moo gën a dal xelam man na kon ne bëree noonu mais bu fekkee aussi dañ ko bëgg a changer loo xam mënu ko dañ koy sonal waaw. en général noo gisee làmb chaque jour ko ni mu wax rek suñ ñëwee leçon de morale dañ koy jëlaale ndax gis nañ yu bari dañ lay déglu làmb instant bi fu mu toll coow détail ñaari xarit dañuy ànd ci làmb làmb yàqu ko promoteur mbër xëccoo bi gis nañ fi ñaari promoteurs yi dañuy xëccoonte léegi seen biir gis nañ léegi mbër sax loo xamante ne bu seen devoir dañ koy def mbër CNG xasta sant xastante beeg te loolu nañ ko gisee ci làmb est-ce que laal làmb soxla na loolu. waaw Fat ma defe naa ni loolu mas nañ ci wax ma nag yow mani la man mënu ma comprendre nit ki yéen a ngi ànd dix ans quinze ans vingt ans benn bis problème am lépp lu ma la ma sax xamal ma toog si télé ou ma toog si internet wax la ko. ñu toog ay nit waxaat ñu arrangé ñu jubawaat est-ce que kooku booy àndaat ak moom di nga fier ou di nga wóolooti comme ni nga ko wóolowoon day des man damay wax ni képp ko may àndal même bu ñu àndee cinq ans bu ñu amee problème man ak yow face à face la ñuy toog réglé ko bu dee dañuy àndal ñu ànd bu ñu àndaatul ku nekk dem si discrétion ku ne jàpp sa ñàmbur mais man de ñaanuma yàlla tey ànd ak nit toog si internet di xastante ak moom ak di di di xuloo ak moom wala may xastante parce que suba mën nañ juboo ñu gis ni tey lii maa ko xon si moom te gis nañu ñu ñu àndaat boobaa dañ naan kii dit ko foo la en plus su ma la yàqee te ànd yow quinze ans vingt ans keneen ki may jublu jiwaat bu amee xel danaan kii ndegam kii la àndal vingt ans ñu seq lu nekk tey mu ñu ngi nii di yàqante est-ce que bu ma jublu si waatee dina sama xel dina dal nañ ko bàyyi loolu wax naa ko ba tàyyi ba pare tamit léegi Sénégal dañuy jox valeur koo xamante ni waruñu ko jox valeur muy wax rek li gën a yokk parler bi loolu si la bokk Sénégal il faut ñu il faut ñu defaraat jikko yi ba pare ñun dañu préparé wul si internet internet li ko tax a jóg dëgg dëgg wax naa ko ba tàyyi préparé wuñu si parce que liñ internet li ko tax a jóg liggéey la bu dee whatsapp bii tey liggéey bi mooy am na lu may jaay statut naa ko gis nit gis na ko command na nangam nangam affaire yooyu am na lu ma bëgg jàll information mais léegi lan nga siy gis defante rek xuloo ku si xuloo nit yaa ngi gaaw dugale statut gaaruwaale waale waxante statut boo gis rek souvent am na lu muy wax donc day dem ba finalement dooto am sax temps wu ne da ngay lire da ngay lire statut da ngay bàyyi mu jàll rek euh, beneen bi mooy promoteur yi mbër yi il faut ñu xam ni famille la làmb day jeex làmb day jeex après dëkk bi moo fi nekkaat kon nañu gën a defaraat mbër yi aussi il faut ñu xam ne ay frères lañu surtout ñuy waxtaan ak seeni supporters waxtaan ak ñi jege mbër yi ñaari mbër sax pour nga gis tenoor yi dëgg-dëgg ñu def yenn yenn erreur yi day jafe mais li ëpp seeni àndandoo ñoo koy def te ñooñu lépp ñu koy def nag mooy dañuy bëgg wut place si mbër mi diviser pour mieux régner moo tax dañuy bëgg tout le temps moytul diw bu la diw laal bu la diw jege diw li mu si yow wax na nga dagg ne ko yooyu c'est pour écarter ñeneen ñi la pour gën a mën a jege voilà très bien kon loolu nañ ko moytu bu baax a baax. si làmb ñu nag na gis nga léegi fan yi ñi nga ñoom ñooy xale yi ñi ñuy tuddee xale yi ñooy bëri ñi nga ni seen i mag ñi ne coow léegi làmb coow moo koy taxawal kon li nga wax sànq ñi ne supporter fan yi am na ay combinaison yi taxaw. loolu ko gisee léegi làmb yi. mais Fatima làmb yàquwul làmb ñi la ma sa doxee làmb ñun jamono yi ñoom ay Mor Fadam ay ñoom Tyson ay ñoom Tafa bi ñuy bëre Tafa daan na teg ñaari combat choc bu daanoo si benn bi ñu jox ko benn combat boo xamante ni combat combat lay doon normal mais du doon combat choc choc loolu mu yàggam si làmb te bu fekkee dañ bëgg def làmb yi coow coow kese kese kese ñeneen duñ bëri di te dafa ñoo xam dañ fi marqué seen empreinte. mu des fii Tapha Gueye 2000 néew ñoon jeexal na ah léegi booy bu bëgg a bëri moom te pourtant am na nay temps ñu ne noo mag la nangam nangam jeexal na na bàyyi nangam mais gis nga dafa teg ñaar ñaari victoire léegi booy yëpp bëgg a bëri moom kon làmb xam nga lan la lu ci am solo mooy résultat bi mais dafa am ay tur yu am dañ fi des yoo xam kenn mënu ko dindi. ñooñu nag bëri ak ñoom daan leen wala ñu daan la mu bokk sa palmarès dafa am solo waaw. slogan boo xam te ni mbër waaw loolu day yàq làmb day yàq parce que tey am na champion yoo xam te dañu mën a bëree doon ay ndaanaan mais gox ba ñu dëkk du nekk goxu làmb duñ leen topp dañ leen war a toppee te bu fekkee danga nga ni képp ku amul mbooloo du ma la du ma la tëgg làmb day mujj yàqu te ñaare ñaari mbër yu am mbooloo pour nga boole leen day doon day jafe. parce que calcul bi day bëri waaw promoteur nag ñoo yor seen xaalis ñoo ñoo ñooy xool li leen arrange ñu def ko mais dafa am tey ay mbër yoo xamante ni il faut ñu leen di sóoraale ñuy ñuy bëri parce que keroog maa gis combat Jokal ak euh, Prince ñu ne yoon waruñu woon a bëree parce que kii moo ko mag mais Jokal avant muy bëree Prince mi dafay def lu bëri si victoire la jógee di. ak Modou Anta si victoire la jógee ah Modou Anta li mu raayoo woon Prince si combat si ay si palmarès tey mënatu koo bañ. Liss Ndiago Lac Rose ay combat yooyu combat yu combat caatu daaw dafa am a neex boobu combat la combat bu neex la man moom boobu sama combat la combat bu neex a ngi noonu macha allah waaw dama xam ñaari ñaari mbëri seen seen jom ba pare ama neex euh, toujours ma wax ne di bëri ñoom nii il faut ñu jàng ko xam ko de ama neex ndaanaan la de ndaanaan la mais daal euh, caatu daaw yaa yàgg naa wax du tey yàlla na ko yàlla dafal cat man gis naa ko mu mu yegg fu sore sori waaw loolu moom gis naa ko si moom. waaw. nga parce que boobu dama gis âge bi mu am gis sañ-sañ bi mu am gis gis gis système mu bëree façon ni muy bëree ma gis ni kii mais dama si dolli woon ni tam bu amee encadrement ñu ko jàppale. xam nga ni dina doon daanaan mais day manqué ñu ko ñu ko waaw mentalement ñuy wax ak moom. ak ñoo xamante ni dañ koy préparer physiquement mu màgg ndànk-ndànk di mu war a màggee yooyu bu ko amulee mën na bañ mën na bañ doon champion même bu amee style bi am gabarit bi am yëpp bu loolu manqué mën na bañ doon champion mais su ko amee ba pare am lii ma a wax ah xanaa yàlla dogal ni du ko doon mais bu yàlla dogalee tuuti dafay doon day doon champion bu baax jaar daaw dafa est-ce que daa xool a bëri daa est-ce que daa xool sama gis-gis laay wax est-ce que daaxu ko bëre. gis da ciy gis man. waaw wala sax plus. style style am waaw dafa dafa dafa xale yoo xam ne dañuy am sañ-sañ waxuma daan ak daanu de man dama gis ni champion lay doon te ëllëg man nga gàdd li ma la man nañ ko dégg waxuma ni day doon roi des arènes mais man na ko mën na def lu raw mën na def lu lu daal euh, bari na. sa mbokku mbëri sa mbokk vi yéen VIP yi gis nañ gars wax nañ ci mais Bombardier déggaguñ ko ci changement bu bees bi wàllum dagg beek loolu gis nañ keroog ñoom Balla Gaye di ko coow loolu waa dagg bi moom mosu fi jóg xanaa kay day am benn instant mu wàññeeku am benn instant mu yokkuwaat mais CNG moom liñ ñu yàgg wax rek moo si nekk mooy euh, structure la boo xamante ni. man des fois dama leen di côtoyer mais benn erreur lañuy def rek mooy seen réglement yi ménager yi ñu koy jox ou duñ ko jox yenn ménager pour ñu yóbbu ko si écurie yi ñu koy liir parce que am na dagg yu bëri yoo xamante ni bu mbër mi liiroon lan moo nekk ci teg si duñ ko dagg man dal na ma sama combat Tapha si dama ko yéex a xool ma yóbbaale furno ñu dagg ma fourné un million. sa waaw mu ngi fi moom laa wax ma ne dañ koy des fois texte bi dañ koy yéex a liir waaw boo ko liirulee am na lu ba da koy def ba dem ba yàgg ñu dagg la ci doo ko xam mais sama combat rek rek sama combat franc kenn dagguma dara parce que liir naa texte yëpp avant beneen bi aussi mooy il faut ñu def ay journée yoo xamante ni dañuy invité quelques ténors ñu waxtaanee làmb mënul ñàkk parce que Bira Sène nekkul nit ko fermé wu de. fermé wul de tëjul ay buntam aussi ñun ténor yi aussi il faut ñam organisation bu am na lu ñu fi defoon commencé ko mais yeggalewuñ ko mooy il faut ñu gisee toog ak Bira toog biro bi ñu wax ñu ñun lii lañ bëgg ñun ñu ne lii lañ bëgg parce que lu mënti xew ñun ñooy ñun ñun ñun la fi yàlla teg loo mënti gis si àdduna il faut mu am ñaar teg si bopp bi du question ko ay ñooy ténor ñoo war a dogal ñoo war a lii de non non non mais yàlla mooy dogal milieu boo gis dafay am ñu ne ci kaw loolu la yàlla jiital ba bu ñu gisee juróomi tet rek dinañ xam ni ñii ñooy làmb ñu waxtaanee làmb waxoon naa tamit ne bu ñuy def réglement il faut ñu woo ñaari mbër ba ñetti mbër ñu fekk règlement yi liñ ciy d'accord ñu d'accord ko ciy bañ bañ ko bu fekkee nag ñu ñoo d'accord loolu ku ko si teggi buñ la daggee nga xam ne yaa ko def. d'accord na mbër nekk li nga xam te ne moom mooy président CNG d'accord na ko. xam président CNG nekkul du du du ay diplôme moo koy def. mbër mën na nekk président CNG mbër mën na nekk lu nekk mais aussi ki ñu fay teg euh, critères yi il faut ñu xam ko njiit yombul de njiit njiit njiit yombul de lu leer laa lay wax parce que président CNG soo bëgg soo soo soo soo soo soo nekkee si écurie mënoo koo doon xam na yaa may déggam de boo bokkee benn écurie mënoo doon président CNG parce que su su mbër moomu di bëree Euh, luwaawal dal si kawam nga teggi ko dañ naan fam bokk tax su bindee recours recours bi jàllul ñu ne fam bokk tax bu dee fa nga bokk la mu jàll ñu ne lam fa bokk tax kon président CNG il faut ñu ñu ñu moom ay critères yoo xamante ni waa vraiment dañ koy dañ koy tànn bu baax a baax mais mbër mën na ko doon. noo gisee saison saison bi moom macha allah neex na trop boo seetee sax gars yi commencé nañ taxawal ay combat jëm saison prochaine mm-hmm. loolu moo lay wan kon. saison bi macha allah neex na combat yi neex nañ bëri nañu kon ñu ngi encouragé waa Alburax waa jàmbaar Makan waa ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di encouragé promoteur yëpp nag Assane Ndiaye parce que promoteur bu ndaw amul ah man dama promoteur bu ndaw amul waaw kon ñu ngi nuyu promoteur yëpp waaw. ak ndax kon ni ma wax rek suñ xamee MMA man su ma xamee MMA Bombardier moom moo tax gis nañ dugg nga ci te xale yu baari bëgg dugg ci li nga xam moom mooy ci tey MMA bi mbëri ñoom ñu ngi ci te Bombardier loolu lan nga ci wax ak boo amee tamit benn message boo xam te ni xale yëpp tey ñoom ñëpp ñu bëgg a euh, dugg ci MMA. waaw boo xoolee euh, deux mille euh, deux mille douze deux mille laa waxoon lii ma la wax nii ma ni làmb sport la boo xamante ni c'est pas encore médiatisé au niveau international man maay mbër mi njëkk a dem Bercy bëree fa bëri dóor. ñu def ko canal ñëpp ñëpp ñëpp seetaan ko si àdduna bi di laajte lan la lan lan la man maay mbër bi jógee njëkk a jóge fii aussi dem Suisse dafa baa MMA ñu naan lan la lan la mais dama leen noonu li ma si jublu woon mooy ñu dem ba sponsor yu mag yi boo xoolal samay archive nag li may wax dem ba sponsor yu mag yi topp MMA topp làmb ji ba ñëw dugg ci làmb ji objectif bu njëkk bi loolu la deuxième bi mooy Sénégal bari na ay mbër ñépp mënuñu am sens su nekk champion wu làmb mais ñu orienté ñenn ñi doon ay mbër Sénégal orienté ñenn ñi doon ay champion Sénégal ay champion MMA te tey yàlla dimbali na ma ba li ma doon ñaan noonu ñu ngi ci voie bi dafa des rek ay organisation ay yenn détails si osewaan yi ino gayna yoon ba yirib jaga oxe na mota gore